jàngoro coronavirus bi nekk na jàngoro bi nga xam ne si àdduna bi yëpp la nekk di law te tàggat yaram nekk na li nga xam ne soxla na tàggat yaram ci biir àdduna bi surtout ñi nga xam ne ñoo nekk di yëngu si para olympics fukk ak juróom benn ñi nga xam ne ñoom dañ dee yëngu si para olympics nekk nañ ay ndaw yi nga xam ne jàngoro bi daf leen sonal moom bu doon wax doon joxe ndimbal bi Haji Dramé media officer bu kuréeli Gambia National Para Olympic Committee moom wax na lan moo nekk si gannaaw joxe bi. ñun yëpp fuñ nekk nii ñi ngi ay waxtu yi nga xam ne jafe-jafe rek lañ nekk di jànkuwanteel jàngaro bi nekk na li nga xam ne tax na sa nit ñi yi dañ dee mun a jokkalante te si waxtu yi façon yi ñi nga xam ne dañ dee bugg di jànkuwanteel ay jafe-jafe seeni camara di secrétaire général bu kuréeli para olympique committee moom wone na ne kuréeli para olympique committee bi yéeg nañ jafe-jafe yi nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngay yëngu si wàllum tàggat yaram yooyu lañ nekk di jànkuwanteel di wax ne waxtu yi ay waxtu la yi nga xam ne nit yaa ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe te wone na ne ndimbal bi bokk na si ay jéego yi nga xam ne ñi ngi koy jël pour xeex lii di jàngoro coronavirus pour mun a génnee xiif si biir àdduna bi ñi nga xam ne ñoo war a njëriñoo si ndimbal bi war nañ jëfandikoo ndimbal bi si anam bi nga xam ne daf leen di dimbale Ramu Jeng ki nga xam ne moom tamit para olympien la moom tamit wone na kontaante am si ndimbal bi nga xam ne kuréel bi boobu lañ joxe. képp koo xam ne nag jàppale nga ñu si time buñ toll nii ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla feebar bi yàlla génnee ko fi si lu mu gën a gaawee di ñaan ñi ñu ngi am loo xam ne ñu ngi ko war a jàppale ñoom tamit ñu génn si xam ne aji télé yi dañ soxla ndimbal time bu nekk dañ ko soxla waxuma laa nag jafe-jafe yu nekk nii fukk juróom benni doomi kuréeli Gambia National Paralympic Committee ñoom ñoo njariñoo si ah, ndimbal bi te ndimbal bi bokk na si sa kii di papa ki nga xam ne sax boole na si loxo mooy eh, papa Ndiaye ki nga xam ne moo nekk di njiite parti buñ gën a xamee People's Progressive Party PPP. bokkara si ndimbal yuñ joxe mooy 35 35 kilos si saaku maalo sukur ak bidongi duulin ak ñaari carton yi tàndarma sanitizer ak ay ak ay sanitizer ak ay sanitizer